Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaahi bijaayi xayri man abaat bismillahi rahmaani wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sabidna walil wali bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen ñi jàkkaarloo ak seen télévision bi TV lëkkaloo ak rajo xasida online Touba Monde bi ak mboolem ku ñuy seetaan ci àdduna bi war ngeen képp noo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko te defal ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak Cheikh Ibrahima ak mboolem donga yi. di am mbégte del soir ak yéen fii ci Touba Varese euh, plus particulièrement bu ko ci bis bu am solo bi nga xam ne waa Touba ca kanam. ñoo ko taxawal ànd ko ak euh, waa daaira euh, tasawul sixaar bi nga xam ne Serigne Saliou Gueye moo ne ca bopp ba di bis bu am solo boo xam ne nii soxna Astou Dieye moo ko daan defal Euh, di ko euh, ganalal sanga mu tedd muy Serigne Tako ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal ren sëñ Fall def ci sëñ Tako def ci fi taalibe ni bis bi delloowaat na ko Touba ca kanam def ko addi Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Moustapha moo waral Italie gépp daje fi tey euh, ngeen ànd nag ak mboolem coordination bi nga xam ne ñu jiite Touba ca kanam nekk itali waaye tam ci teewaayu Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Habibou bokk ci jëwriñu liggéey bi ak tam coordination itali bi yëpp muy Serigne Xaas Diop Serigne Abdourahmane Diop ak Baye Serigne Diop. noo ngi toog nag ak euh, soxna yi nga xam ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ndax xam ngeen ne lislaam lépp lu mu sas góor rek sas na ko jigéen ba juróom-ñaar yi nga xam ne lim leen ci alquranu karim soxna yi nag bëggu nekk mu ko en reste lépp loo xam ne yëkkati nañ ko muy euh, lu jëm ci Serigne Touba bëgguñu kenn euh, man leen ca ba moo tax andi nañ seen i contribution ñëw maa ngi euh, fegoo ak jëwriñ kenn ci ñoom su ma ci limee ñaar rek mu yóbbaale ñëpp soxna Fatim Mbeng mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko Baye Fall soxna Jaara nekk ci fédération des daayira maam soxna Jaara di tali nga xam ne moo ëmb lu toll ci ñeent fukki daayira yu manqué tuuti ak ay fédération mu ñëw moo tam indi participation waaye tamit ki nga xam ne mooy soxna Ndeye Kébé nekk euh, coordinatrice euh, section féminine bu nga xam ne mooy Touba ca kanam bu Emilia Romagna marché Abruzzo ci Italie ak mbooleem jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk Mantova ak nekk Italie gi yëpp ñu ñoom nag tey ànd ak sëñ Tako ànd ak soxna Astou Dieye bis bi nga xam ne mooy bisu Touba ca kanam te nu koy def fii Touba Varese kon dama yëkkat sama kaddu rek jox ko soxna faati mbeng ci turu fédération daayira maam soxna Jaara bi nga xam ne soxna Ami Samb moo ko jiitee ak soxna Awolo ak soxna May Dieng euh, ñu bokk jëm yoo yàlla yàlla boole ak ñoom bu yàgg ba léegi ñu ne ci toolub Serigne Touba ñuy liggéey liggéey bu am solo boo xam ne wax yàlla dañuy ñaan ak suñu borom dafa leen cet te dafa leen euh, tawfiix dafa leen xewal yoo xam ne li ñu bëgg lépp dañu ko mooy liggéeyal soxna Jaara kon soxna Fatou Mbengue ñu jox la kàddu gi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani aleykum wa rahmatullaahi taalaa wa jëm ca kanam soxna Fatou Mbengue maa leen di nuyu di leen ziar di leen euh, balu àq te di leen baal di ñaanal sunu sëriñ bu baax bi sëñ Murtada sëñ Murtada Mbàkke yàlla sunu borom bi may ko fan wu gudd wu ànd ak ak wér di ñaanal tamit euh, képp koo xam ne sii rek yaa ngi ci biir Touba ca kanam am mbégte lool ak contentement lool goo xam ne sii am nañ ko bu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci liggéey bii nga xam ne waa Touba ca kanam dañ koo saytu di ko liggéey jël lu toll ne fédération soxna maam Mariama Bousso jël leen dugal leen ci biir liggéey bi ci ndigalul sunu présidente soxna Ami sàmb ak ñi nga xam ne moom la bokkal liggéey bi yëpp man ma teewal leen fi ak soxna Ndey Kebe wax dëgg yàlla ñu am ci mbégte contentement lool nag taxawal fi bépp daayira boo xam ne si rek bokk nga ci fédération maam Mariama Bousso bi ñëw nañ teewal la ci li nga xam ne si mooy Touba ca kanam di ñaan yàlla nag liggéey bii nga xam ne sumb nañ ko noo ngi ciy ñaan yal nañ ci dajee ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba ak ngërëmu soxna maam Mariama Bousso te liñ ciy liggéey yàlla buñ ci gis suñ bopp yàlla buñ ci gis suñ bopp ñun daal wax dëgg yàlla xam nañ fu ñuy tàmbalee waaye xamuñu fu ñuy yem ndax sas wi moom sas la woo xam ne si kuñ ci boole rek war ngaa doon war ngaa doon jàmbaar kon nag noo ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla boole ca jàmbaari Serigne Touba yi ci barke Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu bu baax nag ci kàddu yi bu dëngee ngeen baal nu ko bu jubee ngeen xam ne ci kàttanu sunu borom bi la jërë leen jëf. Soxna Diarra. kàddu yi am na solo loolu jot na kon euh, ñu déglu ki nga xam ne mooy soxna Ndeye Kébé te yàlla jox ko ñaari cër ci liggéey bi cër ba ci njëkk mooy bokk ci fédération daayira Maam Soxna Jaara Emilia Romagna Marche Abruzzo waaye tamit doon responsable doon euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy jëwriñu Touba ca kanam ci euh, Touba Emilia Romagna Marche Abruzzo soxna Ndeye Kébé auzu billaahi mina sheytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sang sang yi ñu a sant di ziar suñu ñaari waajur di sant di ziar suñu borom kër waaw man la soxna Ndeye Kébé ma ñëw rek di leen nuyu di leen ziare di leen baalu àq di leen baal àq ah euh, ñëw teewal fi nag euh, fédération soxna jaara bu itali ànd kook euh, soxna Fatou Meng jóge Touba Bergamo waaw tey nag wax dëgg yàlla muy bis boo xam ne bisu Cheikhul Khadim la bisu soxna jaara la ndax nag jawriñu góor yaa ngi fi daje fekk euh, soxna yi wax dëgg yàlla ñu kontaan trop nekk fekk euh, sëñ Tako mbàkke waaw muy ziar euh, sëñ Tako Mbacke bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Touba Varese waa Touba Varese bokk ko ak waa Touba ak Touba ca kanam waaw muy bis bu am solo wax dëgg yàlla ñëpp kontaan trop di ñaan yàlla rek liggéey bii ñu commencé yal nañ ko ci commencé ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina ah ñu teewal fi bépp daayira boo xam ne rek yaa ngi biir Italie waa Touba Veneto waa Touba Emilia Romagna Marche Abruzzo waa Touba Toscana bu ma nee fédération Soxna Jaara rek daayira yëpp ñu ngi ci biir waaw pour ñu bañ a lim rek daayira yëpp daal daayira boo xam ne yaa ngi biir Italie rek yaa ngi ci biir liggéey bi ñu ciy invité nag soxna yëpp bàyyiwun kenn waaw di ci jiital nag sunu jëwrin sunu présidente sunu yaay soxna Ami Samb ak ñi nga xam ne ñoom la bokk liggéey fédération Soxna Jaara bi yëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan seexul Khadim di ñaan Soxna Jaara mu mottalil nu yàlla may nu wér ak wérle fekke ak dal ba liggéey Touba ca kanam bi ñu dund ba lépp luñ ci bëgg rek mu mot mu mu lépp jaar yoon rek maanaam ñu dund ba def Touba mu doon Màkka ak euh, Medina ci kàttanu yàlla kàttanu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam may nuyu ñëpp di ziare ñëpp di lu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf jërëjëf eh, soxna Ndeye Kébé kàddu yi am na solo tënku na lool eh, mbokk yi kon loolu bokk na ci plateau yi ñu leen andiloon tey ci bis bi nga xam ne mooy bisu Touba ca kanam fii ci Touba Varese ànd ko nag ak eh, daayira Tasawudu Sixaar bi nga xam ne ñoo ne fii ci gox bi ak mboolem mbokk taalib bi nga xam ne ñoo fi nekk xam naa si kanam incha allah dañoo àndal ak yeneen jëwriñ andilaata leen nga xam ne moom mooy toxoo ci barab bi ngeen di ko ànd nag ak Touba Monde bi télévision ak rajo Xassida online Touba Monde bi fas yéene loo xam ne am na fi rek incha allah ñu andil ko ngeen bokk amoon nañu yéene teew ñi nga xamante ni teew nañu ak wax dëgg yàlla li nga xamante ne mooy liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moo wër diaspora bi kon noo ngi ànd ak sunu technicien sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ak Serigne Papa ci wàllu xarala jot léegi seen mbokkum taalibe El Hadj Cheikh Mbacke Gueye Khadim Rassoul kon ba ca kanam nu di l'antenne Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat Touba ca kanam di kuréel gi nga xam ne dañu koo taxawal ci ndigalu Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér te mu yittewoo lépp lu jëm ci wàllu développement ci biir bu sell bi di Touba mu di ay jumtuwaay yu askan wi soxlawoo ci biir dëkk bu sell bi xam ngeen ne gannaaw fukki weer ba ñu ko taxawalee nag door nañu liggéey bi ci ndigalu xalif yoo xam ne nii fas nañ ko yéene tabax ci biir dëkk bu sell bi di Touba Serigne Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Ahmadou Bassir teg na xeer wi ci teewaayu Serigne Bassirou Mbàkke Abdoul Khadr ak kilifa diine yu takku ci yoonu murit liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo fas yéene teew ci màggalu Touba gi ñu dëkkmal ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni barkeelu ba tax na ci mbooleem gox yi nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba daañ ci def ay stand ngir fexe ba fu ñu fi dem mën a joxe seeni barkeelu gannaaw loolu itam fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 bu dee ci banque yi ubbil nañu leen ay compte ci CBAO wala BICIC banque islamique CNCA fépp foo ci dem itam di nga mën a joxe sa barkeel képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 33 978 25 37 76 268 28 28 78 544 33 33 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam. Touba ca kanam. dunya bi jaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misrasmi bi jaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misrasmi bi jaayi xayri ma nabaat